danaa koy wax toujours ni ko sëñ Bachir ëpp na waaye sëñ Manaar doy na moom itam Mbàkke taxawaayam ci wetu nijaayam taxawaayam ci yoon wi ak taxawaayam ci président de la république rafetlu nañ ko bu baax a baax moom nag tubaarkàlla moo dalal gan gi ñu déglu nag ni ma ko Seex Mamadul Bachir mu sëñ Moussa waxe woon dañuy déglu Cheikh Mamadul Bachir moom sëriñ Abdul Xaadir moo yor kàddu sëriñ bi waaye li tax mu yor kàddu bi sëriñ Muntaxa doyloo ko jege na lool soxna jaar kii bëgg a wax na lool soxna jaar sëriñ Abdul Xaadir sëriñ bu soobe soxna jaar sëñ Balla mi yur yaayam sëriñ bu soobe ak soxna jaar bokk ndey ak bàyyi lool jaar dafa am fu nu nekk rek te ñàkk baax mu sëñ Cheikh Dar Rahman waaye kon bala ma laa jox bi danaa la wax yaay kan yaay jege jaara ku munta ku munta gàkkal alxuraan munta gàkkal sa der bi liggéeyal sëñ Bamba te bul bees kan ku leen raw ñu damee law lamiñ sa sa maama lay liggéeyaloo raw nga mu bu déglu kan sëñ Abdou ma ca penkum jumaa ja ku munta gàkkal alxuraan mënu laa gàkkal sëñ bi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mu wax ne bokki jullit yi fi teew ak bokki taalibe yi ñu ne ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha wa xalifatul aam li tariqatil muriidiyya di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci kilifteefu Sëriñ Isaaxa Mbàkke mi toog di rakkam te teewal ko ci jataay bi di kilifa jataay bi nee kon sëriñ bi mi ngi nuyu ñëpp di dalal ñëpp ci jàmm di nuyu mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi nga xam ne ñëpp a fi ñëw njabootu Serigne Touba nag bi ñu ko waxee képp ku yaakaar Serigne Touba rek tàbbi nga ca biir waaye ñu di ci tànn ñenn ñi teew ci jotaay bi bu ñu ci tuddee ñett rek mu mën a yóbbaale ñu ci des mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Abdoulaye Lahat ak Serigne Bassirou Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Serigne Cheikh Mbacke moom sëñ Mahmoudan Jobe ak Serigne Abdou Rahman moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma ak mboolem njaboot bi yëpp Serigne bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam leen ne jotaay bii ñor na ko lool ndax moo fi Serigne Touba moo fi Cheikh Mouhamadul Bachir kon lu ñuy def fii moom lañ koy defal daana kon nag mi ngi nuyu ñëpp bala ñoo tàbbi ci wax ji ñu fàttaliku sunu kilifa gu baax gii nu ñàkk muy Sëriñ Cheikh Mbacke Daaru Rahman na ñu rek ci li alxuraan santaane woon ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa ulaayika humul muhtadoon nee na xanaa ñu delluwaat ko foofu rek nattu bi ci aaya boobu te xam ne kilifa la woon gu am solo ndax bi fi waajuram bu tedd wa di bàyyi ko di sëriñ Abdullahi borom dër bi ñu ngi ko fekk ci fukki at ñett mu doon xalifa ci fukki at ñett loolu bëriwut ci yoon wi ba tey mu dem juróom-ñaar fukki at ñaar te yàlla dimbali ko it ndax ku jote ak xilaafa foofu nga jàng ba xam li nga war a xam ci diine tër bi yow ba mel na nga war a mel loolu ndimbalul yàlla la kon moom jëmm la woon joo xam ne bokkoon na ci ñi Sëriñ Tuubaa di puukare ci ak njabootam ndax yàlla dimbali na ko ni mu feeñ ba niñ ko noppee gisee yàlla def na mas ta def lu naqar yàlla loolu nag yombut loolu tawfeex ju réy la doonoon ab jàmbur di ko nangoo liggéey doon jëmm joo xam ne kenn mosu koo dégg ci mbiri àdduna doonoon jëmm joo xam ne itam intervention kenn mosu koo dégg dafa nekkoon ci liggéey ak jaamu yàlla ak doy loolu la ko sëriñ Tuubaa defal kooku ñu ko ñàkkee dañuy jàpp ne yoon wépp ko ñàkk yàlla def na bi mu wéradee ba war a tukki ah, moom mii moom Cheikh Bass moom la ko Cheikh Mamadou Mountakha booleel ngir ñu topp tool ko lu ko mën a génne ah, ba mu ko xamee ba nanga ni keroog la mas a dégg yitteem te sëñ Cheikh Bass nee na jàppul ne kenn mas naa dégg yittee sëñ Cheikh Daba Maal nee loolu nag sëriñ bi am jërmaanu teewaayu ministre xaalis boobu bii toog ci a nga xam ni danaa koy wax toujours yàlla borom ki nga xam ne moom la fi président de la république yónni muy Aly Ngouille Ndiaye di ko yóbbante nuyoo sëriñ bi président ci taxawaayam ngi yitteem ak lépp loo xam ne yitteem te mu xam ko lu mu ca man mu def ko mba mbirum sëriñ Cheikh moom moo ci mujj kon sëriñ bi nee na mi koy sant di ko gërëm di ko ndokkeel itam ci yaakaar ji réew mi amaat ci moom ba tànn ko Yaya Touré na mu di ko ñaanal sunu borom kàttanal ko ba mission boobu yi moo am ci ndam na mu ko bëggee itteem lépp mooy Pastef ak nit ñi dellu ci Pastef kon nag li ci solo mooy képp ku digle wala ngay tere la Serigne Touba waxoon ne war nga caa góorgóorlu bañ ña ngay jiite seenum dal ci nga leen di digal moom sëriñ bi noonu la ko yàlla defal képp ci dal na ci moom ndax li muy digle moo ci jiitu ndax moom ku ne xam na ne bi fi ay kilifaam nekkee dafa mel ne ku amut amul bëgg-bëgg amul xalaat léppam mu jooy ko ci ay kilifaam danaan wax ne bu may jëm ci sama kilifa dama koy bàyyeeg sama jëm bàyyee ko di moom mais loolu nag waxu ko rek yam ko nga ci ginnaawam war ngay bàyyi xel moom de li mu lebal ay kilifaam faaw yàlla fay ko te say tubaay fay na ko nag ndax wa min saadati lfata xaysu xadat allah yorub doo faadu si rachat am na kenn ci rakkam yi mbokk ji ñu nekk mbirum sëriñ Muntaxa dafa mel ne bi mu doonee sëriñ Tuuba dafa mel ne li ñuy wax bushra li ahli sama wal kullu yaxtaaru nee loolu la suñ borom defal suñ Muntaxa nee moo tax ñëpp maas ci wóolu ko xol yëpp nangoo nee loolu nag taxawaayam ak jëfam moo ko ko may nee na bu yàggut da koy wax ne ko sëriñ bi de ma seetlu ci yow lu sa julli ak sa naafile ak alxuraan ak xasaay bi ak bëgg ni ñam pasee gis naa nag du sa ittee nee na mu ne bëgg a xam kon nag moom foofu la nekk kon nag yàlla ko suñu borom bàyyi ba mi nga xam ne am na ko joon Sëriñ Tuubaa yi te la ca jiitu université bi muy tabax mu tàmbali ko woo ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi te ñëpp fekk si ko ci yàlla na ko ci suñu borom dimbale ba naaloo mu àggale ko ba mu sotti ba mu ubbi ko ba tàmbaliwaat geneen mottali naa yi nga xam ne itam kilifaam ko bàyyi woon na ko fi muy Cheikh Seydi Mokhtar kon yàlla ko suñu borom bàyyi nu yàgg topp ci ginnaawam te yàlla dimbali nu itam ba nu fexe ba bañ a juyoog ay ndax bu nu ko defee mboolem li nu bëgg yàlla dina nu ci dimbali ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne nit ki ñu ngi ci kanam mi ngi ci digg bi mboolem li muy bëgg te di ko te di ko fexe te di ko sàkk guddeeg bëccëg looloo it na moom mboolem bañ di ko ragal ñu ngi ci gannaawam mu ne waxtu wane ñokket jëm ca sa borom digal mboolem li ngay bëgg te di ko wut te di ko fexe te di ko sàkk guddeeg loola ne la mutuma geesoo noo ko jëm mboolem mi nga ragal te di ko wattandiku bu dégg bëccëg loola ne la mutuma geesu bokkunu fu ñu jëm waxtu woon ne ñokkeel nag jëm ca la sa borom tere mboolem mi ngay bëgg te di ko wut te di ko fexe te di ko sàkku dégg bëccëg loola ne la mutuma geesu bokkunu fu ñu jëm mboolem mi bañ te di ko ragal te di ko wattandiku bu dégg bëccëg loolu ne la motuma geesoon bokk fu ñu jëm loolu kon ñëpp ci war a bàyyi waat xel dellu ci sunu ndax sëriñ bi kat jataay yi mu daan toog fi di wax waxam yëpp génn loolu sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne nit kaa ngi nii daal di bind ak miim ci kanamam bind ak nuun ci ginnaawam ne nit ki saa su xëyee di sàkku addunaam ji di ko dàq te du ko jot mukk àllaaxira di ci ginnaawam di ko dàq te faaw dana ko jot daan na xam nga nu mujjee àdduna àdduna mes dem bàyyi la àllaaxira ne nuus jàpp nee na kon de nit ki bu bëggee lu koy amal njëriñ adduna ak àllaaxira na wattaliku te daw addunaam ji ñu xam ne da koy dàq te du ko jot te dëgg dëgg ma la àllaaxira ji xam ne da koy dàq te fa moom jot waxit ne adduna fasu naaru góor la boo xam ne saa soo xëyee di ko yafal te doo ko war mukk daana waxit ne loolu dafa mën a bàyyi xel ndax fi jamono toll la in lam yantahi al munafiqun wala sina fi xulubihim maradun wal murjifuuna fi lmadinati la nugriyannaka bihim summa laa yujaawiruunaka fiihaa illaa qaliilaa mal'uuniina aynamaa suqifuu waqati loo taqdiran ñi nga nga xam ne. waxtu wu nekk. dañuy ñaaw njort. mooy naafeq yi. ñooñu nag suñu borom da leen tëkku. ñi nga xam ne itam. seen xol yi jàngoro cee nekk. ñooñu duñu wér mukk. ndax waxtu wu nekk. seytaan day jax-jaxe seen i xol. di tàbbal ci ñoom. ñaaw njort. ak ñàkk gëm. ak ñàkk a doyloon suñu borom wala mu jifoon sil madinati nag mooy ñi nga xam ne waxtu wu nekk lu ñaaw la ñuy bëgg a dégg ci nit ñi ñooñu nag suñu borom da leen tëkk jàddu du leen xaare ëllëg moo tax moo xam ne inna lazina yuhibbuna an tashia al-fahisha fi lazina amanu lahum azabun alimun في الدنيا والآخرة man kon loolu lu mat a wattandiku la. Sëriñ Tuubaa daan wax ne. dee bari ay teggin. ndax bu teggin jógee. ak bu teggin jógee. bu teggin jógee. dee leen bari ay teggin. ndax bu teggin jógee. gudd fan ne ko doomu fi bàyyi. xajjal na ko ma teeru leen dalal leen. waaye ne dee safaan ba. ndax bu jógee gàtt fa ne ko doom bi bàyyi sawara ne ko ma teeru leen dalal leen kon dee leen mooy tooñ ndax kuy tooñ bu mujj waaye kuy fay yuddu ñoom waaye kon li mooy dellu ci yàlla te suñu lépp nag suñ pasee fa suñu lépp jëbal ko Sëriñ Tuubaa ndax sëriñ Abdoulaye Mbacke daan wax ne boo amee kooku ndox te bëgg naan bëgg sangu da ngay fekk ku yor géej da ngay fekk ku yor géej nga booleeg moom kenn mënatu la caa génn la nga soxla lépp la ko jàpp kon nañ jël suñu lépp jébbal ko sëriñ Tuuba mu defaral ñu ko tey defaral ñu ko la te moom waxoon na ne Sëriñ Tuubaa waxoon na ne ku ma jébal sa lépp ma jal sa lépp la ko ku ma jox sa lenn téye sa lenn ma la ma jébal ma defaral la ko la ca des ma maandu jox kon nag dana war a jël suñu lépp te xam ne dañoo jaayante ak ak te li ñu jaayanteeg moom. te ak njëg la. ñun nag bu jaayee dara. te yaakaar jot njëg lan jaay moomatu ko. kon nañ xam ne. moomatuñ suñu lenn. moomatuñ suñu àdduna. moomatuñ suñu àllaaxira suñu lépp. nan ko jëfal Sëriñ Tuubaa mu mu defaral ñu ko àdduna. defaral ñu ko àllaaxira te xam ne kenn ku nekkat fàggul na la loo xam ne mën loo ko sa bopp ndax bu su fekkee loo bëgg mu yomb la la wutaleeg say nawle sala sëriñ Tuubaa koo génn ci yow itam dara du ci des te waxoon na li ma leen fàggul mooy ku ci dund am barke ku ci faatu tàbbi àjjana ci des la xisaab te loolu nag fàggulu ko jabar boppam taalibe yëpp la ko fàgg ndax waxoon na ne dañu ko laajoon ne ko nee na daa wax ne sama demel mutakallim yi ma yi ngeen dégg ma ko wax bu jàpp ne sama jëmm ko moom képp ko ci man rek te jub tàbbi nga ci biir loola kon na tàbbal ci adxal nafsi وجميع أهلي شهداء بأفضل وراث الفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nañu fasaale président ca biir li mu simbal lislaam lépp ak réew mi mu yeggale ko dana ko yeggale di ndax fi